rafetlu suñu ànd ak yéen ci Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës bokk na ci lu ñeel wàllum njàng meek njàngale mi ci biir réew mi ak bi ñu ko dénk di Mamadou Talla daal dinay àddu wax ci lu ñeel wàllum njàng mi ci biir réew mi ba waral ñu daal di jël décision gën a ñoŋal njàng mi ban décision la ñu jël mu di xool ndaka la ñuy def ngir yokk école yi ci biir réew mi bokk na ci biir Ndakaaru cees ak Kaolack fas yéene nañu fa tabaxaat yeneen i sa yu yees waaye ba mu ca noppee daal nay biral li nga xam ne moo di cant ak ngërëm gi nga xam ne ameel na ko enseignant yi ci biir réewum Sénégal ak taxawaay bi ñu taxaw ci ñetti weer yi ñu door ubbiteeg école ak léegi ak li ko waral di jàngoroy coronavirus ñu wax ci coowal Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ba waral maître Ciré Clédor Ly daal di ñëw fare si ci ay Ousmane Sonko ginnaaw bu mu waxee lii di teesu complot ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr nee na daal dinay am li nga xam ne moom moo di waxtaan bu yaatoo yaatu digganteem ak Ousmane Sonko li waral mu jël décision ngir ñëw jàppale si ko li waral euh, maître Clédor euh, Ly moom moo daal di jël décision euh, ànd ak Ousmane Sonko dinañ ko yaatal ci biir xibaar yi ginnaaw coowal Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr maître El Hadj Diouf daal dina cay ba jël li nga xam ne moom moo di défense Adji Sarr nee na moo koy défendre ginnaaw bu mu jàppee ne Adji nit ñi dañu ko sëkkaloo sot sotoo ko ba jamono ji amul kenn ku fare ci moom dem na ba wax ne daal dinañuy porter plainte ki nga xam ne moom moo di Pape Alé Niang ak Ahmed Aïdara mi nga xam ne ñoom ñëw fësal lii di procès verbaux yi ci enquête préliminaire yi dañuy jeexalee li gën a fës ak point Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' sociale daal di fësal tey ci samedi ji yemook fukki fan ak ñett ci weeru février mbokk yi xarit li mooy li gën a fës ci ponk yi ngeen lu bàkk bi jàll ñu faram fàccee. aleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo ñu leen ko junjee ci bopp xibaar yi noonu la ñu koy faram-fàccee doore ko lu ñeel wàllum njàng meek njàngale mi ci biir réew mi ak ministre bi ñu ko dénk di Mamadou Talla daal dinay addu arxemes bi ñu weesu ci réunion de coordination bi ñu doon amal euh, contribuer wu ci li nga xam ne moom moo di ay lycée yu ñu war a tabax ci région yi fu ci mel ni Ndakaaru Kaolack ak Thiès li ko waral mu di euh, dañoo gën a bëgg a li nga xam ne moom moo di wàllum njàng njàngale mi ci biir réew mi la ñu gis itam moo di yokk li nga xam ne moom moo di enseignant yi ci wàllum élémentaire ak secondaire li ko waral mu di dañoo gis ne itam ba tey enseignant yi dañoo matul ba tax na décision bi ñu jël moo di yokk ci lu tolloog ñetti junni ak juróom-ñaar téeméeri enseignant ci élémentaire ak li nga xam ne moom moo di secondaire ba mu noppee ca lu ni mel daal dinañ félicité enseignant yi ak li nga xam ne moom moo di inspecteur yi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw bi ñu dooree ubbiteeg école ak léegi ak jafe yi nga xam ne moom lañ ciy jànkonteel mu di jàngoroy coronavirus ñu àddu wax ci leneen coow lu metti li nga xam ne waa Ziguinchor dal dinañu koy amal ñoom itam ci jàpp gi ñu jàpp si ki nga xam ne moom moo di seenub leader di Ousmane Sonko mu di partisan yu Pastef ya nekkee ca département bu Ziguinchor la ñu xamle mu di bëgguñu benn yoon ñu daal di euh, jaay doole ki nga xam ne moom moo di seenub leader li waral àllarba bi ñu passé ñu daal di amal la nga xam ne moom moo di ab mars ak ci àjjuma ja te itam def li nga xam ne moom moo di ab conférence de presse ci altina ji ñu wees weesu ci altine ji ñu weesu ki nga xam ne moo seenu kaddu di Alassane Diédhiou nekkee ca département ba nga xam ne ca la ñu nekk jamono ji ngir nag fësal seenu naqar ñu di ñetti département yoo xam ne ñu nga ca diwaanu Ziguinchor daal di nañuy boole seen i doole ngir xeex li nga xam ne moom moo di uh, seen uh, seen leader bi di uh, Ousmane Sonko di seen doom itam ñu bañ koo jangat jangatee daal di koy wërale li nga xam ne moom moo di càll léegi jamono ji dinañ ci def seen kéem kattan ngir ñu bañ a yóbbu Ousmane Sonko lii kaso daldi nañuy fësal seenu naqar ngir nag ñu daal di wane li nga xam ne moom moo di tolluwaay bi ci Pastef waaye itam tolluwaay bi ci seen doom di Ousmane Sonko ñu des ba tey ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko comme ba coow li amee ba léegi ni ñaa ngi lëx mbott ngir xam kan mooy Adji Sarr mi waral coow li ba waral ñenn daal di génne lu yees ci dossier ba Adji Sarr ginnaaw bu mu jiiñee woon viol benn professeur am bu ko doon jàngal ca funjuñ mu mel ni du c'est pas la première fois Adji Sarr di jiiñ viol kamu ko njëkkoon jiiñ di professeur boobu itam Sonko la sant coow la ba mu jollee moom professeur ba dafa daal di miimoon accusation yi nga xam ne moom la ñu tegoon ci am ndoddam waaye yëf ya mu mel ni dafa mujjee jur loxo ci poos xaalis bu takkoo takku daal di ciy génn ñu jox ko Adji Sarr kii nga xam ne moo di ndàmpaay ba yëf ya mujjewul fenn ñu wax ci coowal Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum défense gi ñu gis ci nag ki nga xam ne moo di maître Ciré Clédor li di avocat bu mag ci biir réew mi ngir ñëw défendre ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mi ñuy jul jiiñ li nga xam ne moom moo di viol répété ak menace de mort li mu àddu wax nag ki suñu natango yi di Dakar Actu moom maître Ciré Clédor Ly nee na daal dinay jokkoo téléphone ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba mu ca noppee daal dinay dem këram toog wax ak moom lu tolloog ñetti waxtu yoo xam ne daal dina koy firndeel ne yëf yi complot moo ne ci biir te itam amu ci dut benn yoon dina jël défense ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba fu mu yem neex ñu des ci affaire Sonko juge bu huitième cabinet ginnaaw bu mu sàkkoo ñu daal di indi li nga xam ne moom moo di ADN bu Ousmane Sonko ki nga xam ne di Mamadou Diallo daal dinay euh, addu jëmale ci réunion bi nga xam ne moom lañ doon amal ci assemblée nationale ci alxames bi ñu weesu ci lu ñeel wàllum immunité parlementaire bu Ousmane Sonko dénoncé li nga xam ne di posture illégale bi ñu évoqué daal di évoqué ci article 61 51 ci règlement intérieur bu assemblée yi nga xam ne moom la Moustapha Niass dirigé ak majorité mécanique bi dañoo faux ci li nga xam ne moom la ñu bëgg lever l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko eh, te loolu nekkul loo xam ne mooy satisfaire li nga xam ne moo di procédure bi eh, juge bu huitième cabinet eh, bëgg ñu des ci maître El Hadj mi nga xam ne daal dinay annoncé ab plainte bu jëm ci Pape Alé Niang di ab journaliste ak itam Ahmed Aïdara ginnaaw bu ñu defee li nga xam ne moom moo di étalé commenté li nga xam ne moo di procès verbaux yi lañu leen di toppee ba waral jamono ji daal dinay fësal ne dinañu topp ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñaar ñooñu waral coow daal di indi ay leeral ci li nga xam ne moom la ñu def ndaxte du yoon ñuy étaler ak commenter li nga xam ne moom moo di yooyu les procès verbaux maître El Hadj Diouf daal dinay xam le lu ni mel ni ki démb ci guddi ci émission jàkkaarloo bi mu doon amal ca TFM Serigne Bassirou dal daal dinay viser ki nga xam ne moom moo di plainte contre X ak la ñu leen di toppee ginnaaw appel à l'insurrection ndaxte dañoo jàpp ne Ousmane Sonko moo nekk ci ginnaaw yàq gu métti gi amoon ca cité kër góor gi ni ki altine bi ñu weesu rencontre x la nit ñi dañoo jàpp ne x moomu Ousmane Sonko la mën a doon ginnaaw bu mu defee appel ngir nit ñi daal di résister ci li nga xam ne moom moo di coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi daal di dem ci cité Kër Gorgui di fa yàq yàq gu métti métti nit ñi di ñaaw njort ne ginnaaw coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko beneen plainte mën na daanuwaat ci kawam ak la ñu koy toppee mu di appel à l'insurrection ñu daal di wax ci président tribunal daal dinay annoncé li nga xam ne moom moo di ordonnance bu janvier dossier bi nga xam ne moo permettroon maître Moussa Diop dal di saisir li nga xam ne moo di compte Dakar dem dikk yi bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yi di seen Seneweb maître Moussa Diop dal dinay fippu jamono ji ginnaaw bu ñu joxee dëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñamu doon xëccool lu ni mel di Omar Bun Khattab Silla mi ngi ko wuutu ndaxte dal dinay indi li nga xam ne moom moo di boobule dossier civil ci kaw penal ngir nag ñu dal di jël dëgg gi jox ko Omar Bun Khattab bi dina wéy di am ngir li mu bëgg mu dal di koy am eh, ginnaaw bu ñu koy xeexal li nga xam ne moom moo di wàllum indemnité ñu wax ci opération de sécurisation bi nga xam ne dal dinañu koy amal ci banlieue bi ci diggante Pikine ak Ndakaaru ba tax ñu dal di ci jàpp lu tolloog ñaar téeméeri nit yoo xam ne lañu leen di toppee mi ngi am ci guddi arxemes jàpp ajuma eh, police bu Pikine ak Guédiawaye ñoo leen teg loxo eh, juróom ñaar fukk ak juróom benn ci wàllum violation nga xam ne moom moo di masque ñaari ci détention chanvre indien fekk ci ñoom lu tolloog juróom ñaar fukk ak ñeenti cornet ak yeneen ñaar yi nga xam ne dañoo daal di ko woon ak seen sago maanaam mandi ba xamuñu fu ñuy taxaw ba waral jamono ji ñoom ñaar téeméeri nit ak benn yooyu yëpp dal dinañu leen di teg loxo ñu wax ci Jamra mi nga xam ne jël na décision engagé wu pour une première fois ci loo xamante ne ni décision bi mu ci jël dal dinay strict ginnaaw bu jàppee ne président États-Unis bu yees bii di Joe Biden décision bi mu jël ngir indi fii li nga xam ne moom moo di wàllum ngóor jigéen ci biir réew yi Afrique yi rawatina Sénégal gi nga xam ne daal dina koy visé ginnaaw ci li nga xam ne moom moo di ba wàcc ay élection ca ba muy campagne doon na wax ne bu toogee ci bopp réew mi ci diiru bu ñetti weer dina promulguer li nga xamante ne ni moom moo di wàllum LGBT ci yeneen réew yi ba waral décision bi ñu jël moom moo di xeex li nga xam ne moom moo di wàllum ngóor jigéen ngir ñu andi ko ci réewum Sénégal ba waral Jamra di ci woo képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi te islam ñor la rawatina ñi nga xam ne ñoo di imaam yi ulema yi ak ñi nekkee ci jàkka yi ak lu ne mel ak képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réewum Sénégal te bañ culture bu Sénégal naax saay ngir ñu mën a xeex li nga xam ne moom la ñu bëggal dugal ci réew mii di Sénégal dañu koy jeexale ak point Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l'action sociale amal tey ci samedi ji yem ak fukki fan ak ñett ci weeru février ci test yu ñu jot def ñeenti téeméer ak juróom benn fukki nit ak ñaar ñoo ci dellu si am bi fukki nit ak benn ñàkkaat nañ bakkan dolleeku ca lim ba ñàkkoon seen bakkan euh, ñaar téeméeri nit ak ñeent fukk ak juróom benn wér nañ ba ñibbi seen i juróom fukki nit ak juróom benn ñi ngi réanimation tax ñi sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama yi di ci lëkkoog ministère de la santé de l'action sociale di sàkku ci askan wi ñu gën a digle yi bàyyi tere yi bokk na ci takk masque laal gel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yee xarit ñuy taxelu ci suñu Sunugal 24 fii la ñu yëkkatee bi la jotaayu xibaar di ñaan geen di woy suñu programme di leen ñaanal fanaanum jàmm di leen jox dig daje ëllëg ইনশাল্লাহ